on a zéro double, hein, Zéro double zéro double, hein, voilà. Voilà, donc euh, mal, Aliou Ndiaye, euh, euh mandataire au Mamadou Lamine Diallo, candidat MLD Teki 2024. Alors, vous, vous venez de, passer devant la commission. Qu'est-ce qui s'est passé Oui, en fait, on vient de passer à la commission. Donc, euh, la commission, avec les sages, toute l'équipe, ils nous ont très bien reçus. Donc nous avons mis notre clé pour regarder nos parrainages. Euh, ça s'est très bien passé. Nous avions déposé le maximum de parrainages, c'est-à-dire 58 975. Après contrôle aussi, nous, avons zéro doublon interne et nous avions eu 19 euh, 000 euh, doublons externes. Donc ce qui fait que nous avons réussi à avoir 39 000 quelques parrains valides et il nous reste à compléter à peu près 5 000 pour valider notre candidature. Vous êtes optimiste pour la suite Oui, oui, nous sommes optimistes. Donc il nous reste à peu près 5 000 à compléter. Et donc euh, nous avons confiance et nous allons nous atteler au plus vite pour euh, amener les 5 000 qui nous manquent. vous avez une réserve ah bien sûr, on, a des réserves, on, on s'est organisé parce que là c'est une grande organisation évidemment qu'on a utilisée. Donc nous travaillons sereinement et nous pensons évidemment réussir euh, ce que notre, le travail. Merci. waaw man la Ndiaye euh, mandataire au candidat Bini Wawé Mamadou Lamine Diallo du candidat au coalition MLD teki 2024 donc euh, léegi lañ jógee ci conseil constitutionnel pour ñu xool sunu parrainage biñ ko saytoo gis nañ nekk li ci ëpp am nañ ko li ñu manqué tout tuuti la loolu ñuy woowee doublon externe mooy li nga xam ne dañ ko ñu rooleeg yeneen candidat donc loolu fu mu toll loolu lañu war a mottali loolu la ñu war a mottali nag juróomi jun juróomi junni euh, parrain la ñu war a indi dolli ko ci pour mëtal li nga xam ne moo ñu manqué donc euh, am nañ ci yaakaar yaakaar nañ ne dinañ ko mën a mottali si nu mu gën a gaawee et que euh, incha allah ñu dem ci élection si jaam ak salaam waaw comme ñëpp rek euh, normalement 48 heures la ñuy wax ñaari fan yoo xam ne war nga ko mën a dajale nga mën a ñëw indiwaat parrainage incha allah. mais lépp ngi jaar yoon seen xel dal na si procédure waaw procédure bi bon c' est vrai informatique la man mii seen di wax ak yéen si milieu bi laa nekk euh, donc euh, machine moom day xool rek li nga indi mu ak logiciel bu ñu koy traité ñu xool lan moo ci ñuroo maintenant ñun nag xamuñu lan la ñu indi woon ba ñu war ñu wax ne ñun ak ñoom a ñuroole donc lolu ñu nek ci ginnaw do ko mëna xam euh, totalement mais liñ ci xam moy euh liñu def euh, jaar na yoon. voilà jafe-jafe ci clé. non clé yépp normal na. voilà Alioune euh mandataire moom Lamine Diallo voilà merci.